waaw xew gi nag jaaxal nañu torop torop torop torop bett nañu daal bett nañu mais nag jaamu bëgg ak yàlla ak dogalam xañ na suñu borom moo na ko joxoon moo ko ñëwaat jël si dañ koy sant yàlla bu baax ko ñaanal fi mu wax dëgg yàlla boo gisee mbooloo mi ak ñu ko taxaw ñëpp xam ni kii bu baax la koo xamante ni ko am yëg la si doomu aadama si waaw mu nekk mu nekk xaar bu ndaw yàlla def mu teel a am visibilité nit ñi xam ko mu génn àdduna ci anam bu gaaw nan lan la annoncé génn àdduna bi waaw génn àdduna gi bi ma bi ma kii man parce si fajar gi laa ko yëg génn àdduna si guddi gi parce que man damay teel tëdd moo tax bi xëyee fajar gi suba gi bi ma yeewoo noonu dan ma ko wax bi ma ko waxee mu doy waar bi ma ko wax sax yëg xaw ma ko dama ne ko est ce que bi ma ko wax sax dama ne ko est ce information bi ñu la jox baax na est que li nga wax dëgg la mu ma noonu la demee ma ne ko man bala ma la gëm dinaa duglu ba si kanam ba xam si laa duglu maa ngi si groupe bu wasaba waaw maa ngi si groupe bi nga xamante ni si si lay jaale si leen jaaleel ay message rek yëppam après si laa taalee sama connexion déglu tamit moo dégloo si groupe bi groupe bi même chose noonu ñu si bëri xalaatuñu woon ni dem na parce que ñu si bëri dañ ni lii kenn war koo information yi war koo joxe si koo xamante ni si mi ngi fi ñu si bëri gëmuñu ko woon daal mais à la fin après lañ xam ni li ñu wax dëgg ko quoi mu bett ñu trop trop sax waaw. kañ bu mujjee gisante ak moom. waaw bi ma mujjee gisante moom tax koo yàgg noonu nag tax ko yàgg yàggul waaw parce que moom dañuy déggante mais tax koo yàgg noonu waaw mais xaw na ko gëj déggante tuuti sax mais muy kenn si mandaar yi xel bu baax si baax a baax sax bu am yëg si doomu aadama waaw. ana loo koy ñaanal. waaw dañ koy ñaanal rek fu mu jëm gën a ko fi jugee waaw sa rafet nañ si njort bu baax parce que xale bu ndaw parce que àdduna mbooloo mi yëpp ñëw teewal ko kon xam ne ni ak mbaaxam ak yaram waaw loolu moo ko sàkku tey jii parce que bu mel ne nit. mën na fi bañ a gis bu mbooloo mais ni mu mel tey moo tax mbooloo ñu tey ñëw di ñaan tamit aussi ay waajuram tamit euh, ñu muñ sax xam ni yàlla moo leen ko joxoon moo leen ko jëla moo ko jëlaat waa sant tamit ay mbokkam tamit aussi waaw jërëjëf waaw ok merci. ko waxee rek ci suñu euh, fi indi mooy génn àdduna presse ñu gis yenn ci xaritam yi di bëgg leen laaj ay quelques témoignages ci seen diggante presse. gannaaw nuyu leen la. maa ngi leen di fay. Fadel suñu turandoo ba Sigil Digaale ñu ngi lay masawu li mu toog. Sigil yéen seen wàll. sa diggante Prince. waaw Prince ñoo bokkoon classe daaw daaw jéeg fee en plus sama xarit la dañ daan diggante tout le temps sama xarit la. alhamdulilah. kañ ngeen mujjee gisante. buñ mujjee gisante xaw na yàgg mais vendredi passé déggante ne daf ma woo téléphone mu ne ma semaine prochaine daf maa ne dimanche wala lundi wala mardi dinaa ñëw seen kër ma ne ko ok naa la xaar jour bu ma yëgee nouvelle bi. jour boobu si suba sama xel mi ngi si woon ma ne prince de xam naa suma pare dinaa ko ma laaj ko kañ lay ñëw suñu kër xam nga après ma fàtte ko quoi ma toog ba guddi noonu rek dugg whatsapp gis lool après affaire man gëwuma ko woon sax quoi xam nga après ku ko dugal laa envoyé vocal ne ko yow affaire yu dof yi ni ngeen def ni mooy lan genre yooyu noonu xam nga mu ne ma lii rek ñoo gisandoo après si laa wootee woo sama xarit yi ñu confirmer d' accord su ngeen doon waxtaan ci lu ci soob ci lépp ci lan ngeen daan waxtaan. non Prince moom wax dëgg yàlla mu nekk nit boo xam ne nii suy wax ak yow comme si que comme si que maanaam mag mooy wax ak yow mag boo am xam-xam barke alxuraan karim non seulement dëgg la xale la de mais lu dafa nekk nit koo xam ne dafa intelligent xam nga day wax ak yow di la conseiller comme si que moo la mag wala comme si que benn wàllu wala dara nit ku baax la amul problème su toogee benn moment ni déglu la sax daf lay woo téléphone. ne Fereer gëj naa laa dégg genre yooyu noonu billaay man daan ma ko saxoo yu si bëri moo ma daan woo dëgg la artiste la woon mais xoola affaire artiste bi dund ko woon sax dafa yéegoon nit ngeen mun na la xam tey xoola du xaar sax nga koy laaj numéro moom moo la naan booy jox ma sa numéro ñu déggante après moo lay woo moo lay nemmeeku wóor na yàlla. bon maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana loolu lañ koy ñaanal. Prince ñoo bokkoon classe ñoo defandoo BFEM ensemble yàlla dogal lu muy dogal nit ku baax la ku baax moo ne Prince. bi nga yëgee génn àdduna ay ay vingt trois heures laa ko yëg mais góob moo ni Prince génn na àdduna mais sama xel dal na si parce que xol bi ko yàlla may xol bi ko may. su fekkee loolu kese kese moo dugal àjjana ma print ñu ko àjjana lay doon. Euh, tey euh, ci gën a marqué. print semaine passée semaine passée dama am doom ma ñëw ba suñu kër yàlla def na sama sama néeg la ma fekk mu génn toog sama yaay mu dégg xale bu jigéen mu amal doom mu wax sama yaay ko doom xale dafa feebar sama néeg la fekk moo yëg xaalis jox na ma dama la fàtte ba nit yooyu dafa des sa bopp loo koy ñaanal loo koy ñaanal ñaanal ko dëgëral nga ñaanal ko rek loo koy ñaanal dëgëral nga ñaanal ko sa xarit la dem na te am na fu mu la bàyyi parce que yëkkëna sa wala jox la ko sa doom ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen jour jour ba ñuy def BFEM daawaati géej da doon taw da taw ba ñu paree ay 17 heures lañ paree def BFEM fa lañ toog école ba muy taw ba ay 21 heures ñu pare mu dem ba suñu kër fan yee passé dañ dem ba seen kër fekk papaam feebar ñu dem ñu gis papaam yaagul dara mu annoncé ñu décédé papaam. papaam gaañu la trois yàlla def mu gaañu démb diggante bu soree woon tey yow bi nga xam ne si sunu tur mooy dundee loolu. am lu ma métti trop tey ma dem seen kër lu musul am. ma dem seen ma dem seen kër sans moom ma demee jigéen ma gisee moo ma ma gis jooy maa ngi tudd Njaxas Kafe Njaxas Kafe sa diggante presse Adji moom man moom dañoo yàgg ndeysaan suñu borom dogal na man moom dañuy toog lu bari du waxtaan sama débutant yëpp fekkee na ko moom tamit fekkee naa débutant am yëpp presse du xuloo du xeex ci xale bu ndaw yaru na teey na jox na ñëpp respect du sigg sax xool nit barke alxuraanu karim musuma gis mu xeexee wala muy xuloo yàlla rek laa tiim ku dégg sa bàmmeel xaw ma nag keneen moo gis mais man musuma gis mu xuloo wala mu xeex ndax xale xale bu ndaw la bu yaru daal bu teey yan relation ngeen amoon yéen ñaar lu bari bari maanaam day ma ñaanal rek moom boo xasee ba mag rek xam la lay wax grand bi rek la lay wax moom du wax ay booy ak nii de kon gars yi luñ xewal léegi naan la ay booy ak moom grand rek lay wax loo ko munte mag même boo ko magee ay secondes sa grand bi rek lay wax grand bi rek e grand bi si loo ne waaw ah, baax na léegi saa bi ñibbi nag day ñëw sama place tàggu ma ne ma maa ngi ñibbi mu ne ko yàlla baax na di nga ñëwaat suba mu ne waaw incha allah loolu rek a ah, yàggul dara ay diiraan yu ndaw billaahi taman ñun moom lu ñu dégg moom seet na suñu xol trop trop trop ñu ñoo bëgg xale bi jaamu yàlla en fait ñu mu dekkal ñeel ñëpp booy bi day dem jàkka ñi nga imagine toi moom jul na tiif sa pare waaw suñu borom pare na bu yàgg jaamu yàlla daal moo sax moo woor ci ndaw soo bëggee mucc del jaam yàlla rek suñu borom mën na laa yërëm ci lu loo koy ñaan ah ñaan yàlla yërëm ko rek ndax xale la yàlla du ko toppee dara xale la yàlla na ko yàlla yërëm ñu si nekk ñu des nag ñu xool jàngat bu baax a baax a baax kontaan nañ bu baax a baax a baax yéen ñëpp seen teewaay suñu borom moo dogal nag jaamu pexem yàlla ak dogalam. moment yi la ko annoncé xale bu feebarul. waaw yow xaw na maa diis sax dama ne noonu gars dañ may mbalak sax. ndax bu ma ko gisee daanaka yàggul dara te moom damay day xaw di saafonte ak man lu bari bari saa bu fi ñëwee moo moom lu mu néew néew day ñëw sama place di waxtaan ak man ndax damay fàttaloo imagine yoo xam ne damay yaakaar ne sax kii moo mag fekk yow man maa ko mag fop ndax lu may wax sax day mel ni ab paa bi wax ak man si wax tuuti rek day sëgg di la xool wala mu ne la grand bi loolu rek lay wax ci ci xale bu yaru yombul quoi yombul yàlla rek moo ko yar nag yàlla moo yar doomu aadama nu ko neexee ñu ñaan yàlla yërëm ko rek yàlla moom yërmande rek si yàlla lañ koy sàpp ndax moom moo ñu wàccee fii. bu bari ci réaction sénégalais yi ñu naan moo topp ci euh, ah. moom dañuy fàtte dee painsaay mhm. loo wax ñu ne la cat la lu ñëw ñu ne cat la nit sax day judd deewaat xanaa kooku cat a ko rey waaw nit dina judd tey xamul ndey xamul bàyyi xëy deewaat waaw am na ko jur yaay fàtte doom xamul fenn ku sañoon sa doom du dem waa loolu waxu sénégalais la waxu sénégalais moom jarul doo sa doom garaaw yàlla moo ñëw daal nañ nangoo dogal suñu borom waaw